des itam ne ci seen ginnaaw it ñu ngi leen di ñaanal yàlla guddal seenu fan yokk wér gi ak man gi donga yi topp ci seen ginnaaw itam ngeen ñaanal leen yàlla dafa nu wér ak fekke ak tal sëñ Modou Kouna nee na mu ngi lay nuyu lu bëree bëri moo waa daayira bi nga xam moo leen jiite ñëpp Touba Kayor nee na ñu ngi dollu beesal ak seenu njébal di la doolee siyaare di la doolee ñaanal di sàkku it ngeen ñaanal ko ñaanalaale mboolo mi ñëpp suñ defal suñ bon defal leen fan bu gudd ànd ak wér sant nañ bu baax a baax a baax man nag sant naa bu baax a baax yaram bi jagaade woon na nag waaye fexe naa ba ñëw waaw barka yëpp la jot li ma lépp day rabat ma ngi nii ñu ngi sàkkuwaat ñu ñaanal leen baax a baax rek ndax góor ñeeg jigéen jigéen ñaa ngi ne ci ñëpp ñëw nañ bàyyi mu ngi yóbbante nuyoo bu baax ci yow démb yàgg naa ci moom nga dolli ñaan bu baax mu yàgg fa lool ndax mag moo xamante ni mu baax la daa war a yàgg doom jii Cheikh jàmbaar la oto bi ñëwee fii moo ko fay ni bu kenn fay benn dërëm ñaanal ko yàlla yokk bu baax a baax ak ñun yooyu bi waaw waaw waaw ngok waaw ndax da yàlla moom ak jot mu ànd ak yitteem yëpp te mënoon na nekkat danaa joxe siyaare waaye nag am naa fooy siyaare waaye xamewu kër gi siyaare xamewu ko fii waaw kon nañu ko sant bu baax sant yëpp nag ak mboolem tund te ñaan yàlla mu taxaw dimbali leen noo ngi fii fi ñuy wax Daaru Koso Daaru Koso nag ku fi ñëw xam ne fii dëkk boo xay maam Thierno moo ko sanc moo ko sancal sëñ Mahamadan ba mu ko fi sanc nag booba metti na lool waaye teewul sëñ Mahamadan daa muñ toog fi ngir ndigalal maam Thierno nekkal fi itam taalube ak i magam bi fi nekkee itam metti na lool waaye nag yàlla dimbali na ko ba doon ñaan ba yàlla xiiwal yi indi ku ñu ko fii kon maanaam bis bi itam nga xay ñu ngi koy def ngir bisu sëñ Mamadan ak bisu maam Thierno ak njabootu maam Thierno gépp ñu ngi koy def nag ci barkeb sëriñ Touba ndax lépp sëñ Touba rek la kon bu bu fekkee sëñ Touba moom rek la nag koso ñu sanc ko li ko sancee woon mooy liggéey ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale loolu lañ fi ñëwoon bari na mbake mbàkke yu jaar fii waa sëñ bari jaar nañ fii sëñ Mamadan jàngal leen ak ñeneen ak ñeneen man mi wax ak yow man Cheikh Gakou laa tudd waaye sama baay mu ngi woon fi Baye Mbaye Ndoumbé Gakou mook Serigne Gakou ñoom seen kër a ngi nii sëñ Mahamadan la ñu muritu ba wàccee leen mu wàcc leen daggal leen kër dalal leen fii ñu bokk fi nekk nu ànd na ak nun waa daayira Touba Kayor Daaru Gaay ak Mbelle jak tund woy ko wër yépp noo ànd ñëw doon siyaare si sëriñ bi e ngir màggal sëñ Mahamadan gi noo ngi ñaan sëñ Maxtaar mi ci biir yal na yàlla guddal fanam yokk wéram ak sëñ laat mi ko bokkal ak sëñ maam Thierno ak sëñ Ahmad njaboot gi ko bokkal yëpp. كن فيكون ملاك وبك ما تصدق فلم يكن بمشرك لم يقبل كالمؤمن كونك المؤمن يا أمه كالمؤمن ما صمد يا قنادي أنت زولا وابد الكلام ما معنا فكر الألم فأنت زولا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki julli di bokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax am mbégte di leen siyaare ci barab buñ baaxoo def nii xamante tey ñu ngi fii ci Daaru Koso di dëkku borom Daarul Moxti tam dëloon fi doomam Serigne Mahmoudan Mbacke ñu feggoog ay mbokki taalibe yoo xamante ni ñoo fas yéenee def ay soññe ak ay sant ci bis bi diñ ci njëkk a tàmbalee dañuy jox kàddu gi Serigne Maguette Niang su ko defee moom dina wax ci xamal nu kan mooy jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mahmoudan Mbacke buñ ci jógee tamit dinañ jox kàddu gi bàyyi Alaaji Syll su ko defee moom it dina wax ci programme mu màggal gi ak ni nga xamante ni lan mooy jikkoy sëñ dan mi nga xamante ni moom la ñuy defal bis bi ak lan ndaw yi lañ mën a jàngee ci moom. suñ ci jógee tamit incha allah dinañ jox chef de village bi muy Baye Moustapha Diop mu àdd ci kàddu chef de village bi ak lépp loo xamante ni ci dëkk bi da koy aajowoo ak loo xamante ni Euh, rôle pour chef de village incha allah dina ci àddu kon ñu jox Serigne Maguette Niang rek mu wax kan mooy jëmm ju tedd jii ñuy defal bis bi muy Serigne Mahmoudan Mbacké Kosso sëñ Maguette bisimilah. sëñ Mahmoudan Mbacké man moom moo tax lii may wax ci yow ah li ma xam si sëñ Mahmoudan bi waaw li ma xam ci sëñ Mahmoudan bi nit ku ragaloon yàlla ku maanu ku bëgg lislaam bari yërmaane lool. bari xam-xam lool ndax man mii dem moo ma yar ci néeg bii may nekk ci sama juróom-ñetti fukki at maa ngi ceeg benn bi may nekk kosa gi booba di neexut a nekk ak kenn ci dëkk bi ndax naqari waaye lépp sëñ ma ko boole woon ak maanu ak laabir ak soxlaalul kenn dara tey dimbale doomu aadama yi ci moom laa mas a mu nekk kosa gi mboolem lu sant Mbàkke bu koy ngay doom joo yaakaar indi nga ko kose gi mu di fi jànge mu def ci xam-xam bu mat sëkk te kenn musu ko ne soxlaalul kenn dara li ma mën a seere ci moom daal mooy man mii bi may ñëw fii ci kose gi daal yaari daara laa fi fekkoon ñu dundee ñu dundee dund gu naqari di jaamu yàlla jaamu yàlla gu mat sëkk te kenn musu ko soxlaal dara musta tukki musta dem fenn. ah jëm jooju ngeen wax na mu nag muy jëmmi sëñ Mahmoudan ah lu ci bari lu am solo suñ màggan ñang mi wax na ko waaye nag daa doon jëmm joo xam ne ak dundam lépp lépp lépp da koo teg jaamu yàlla gu wér ak liggéeyal yàlla muy yaar yoo xam ne dañoo den te wuute lool te lenn loo xam ne danaa daana ci des amul ndax boo gisee tey ñi nga xam ne ñoom la yar yaral leen boppam Euh, seen seen seenu doxin ak seen jëf ak seen waxin lenn loo xam ne da nga ko seet maanaam lenn wuute ci ak sarexatul islaam amul rawati nag buñ jëfe kon loolu doy na ci firnde ci sëñ Mahmoudan ni mu nekkee wun fii boo xoolee koo xam ne dox nga ba dajeeg moom nga laaj ko ne ko foo dëkk mu ne kosolaa dëkk koo yaakaar moom sëñ Mahmoudan ku la yar mu ne sëñ Mahmouda kooku danga gis ci moom aw doxiinam ak waxiinam ak jëfiinam jëf joo xam ne néew ma doo ko gis fenn waaye niiwaane loo koy am loo koy gis fi barab akuk dal moom nag doon na jëm joo xam ne jiggante lislaam ji dara des ci ni ma ko waxee woon ak liggéeyal sëriñ bi ba noppi nag teg ko ci acteur bi ba foo dajeeg moom daje faak lenn luy niru kilifaam wala la alali kilifaam kookee doo jàpp ne kii mooy jëmmi sëñ Mahmoudan ndax dana fa wàcc wàcc goo xam ne doxin fa doxinu taalibe woo xam ne maanaam jàppoon nga ne sëñ kii jëm ku am daraja jiim am du doxe nii tayit maanaam ni mu ko waxee barab bi dafa doon barab boo xam ne ah, dafa mel ni la sëriñ Tuubaa dencaloon borom dara Daaru Muxti am na ci loo xam ne nekk na fii ak li fi borom daaru moo di liggéeyal boppam. am jëmmi bis bi moom làmb na loo xam ne lii ma ci waxit ah lenn dama koo dégg lenn damaa dem ba xalaat ne lii mooy war a mën am waaye samay at mayewu ko ci loolu ndax ñoom ñii sëñ Moussa Diop mii fi laa ko fekk ci daara ji mooma ci jiitu kon xam na ci lu ma ci xam kee mook sama mag ñoo bokk nekk ci daara ji kon xam na ci lu ma ci xam waaye nag mbir moom day am yoon woo xam ne boo gisee sa kilifa tege ca moom nga tege ca nga nga nga nettali ca la nga ca war a nettali te muy lu tege ci yoon uh, wàññiwul dara. moom am na jafe-jafe lool ndax naqare na ba jaaruwut ñii fi ñëw tey xam nañ ko am na jafe-jafe bu méttee méttee méttee ndax uh, gànnaaw la boobu baree bari boo xam ne oto yu bari mënuñoo ñëw luñ ci waaye laa na nga ko jàpp te xëy moom lépp lu koy defal rek da nga ci da nga ci fekk moom waaw lu koy defal da nga ci fekk diggante bi fii ak daara ci waaw ñi nga xay ñoo yor yoole wax dëgg yàlla nañ ko dégg rek nañ na sëñ bi côté nii la mel nii la nii la demee te lii la bëgg fu ñu jaamoo yàlla fu ñu déggee kepp waaw loolu rek mooy bëgg bëgg waaw jërëjëf comme ni nga xamante ni def nañ ko muy kilifa yi jàll kon bis baa ngi noonu muy màggaluk Daaru Koso ñu gën a insisté waat ci li nga xamante ni moom la chef de village doon wax muy dëkk boo xamante ni dëkk bu am njëriñ la dëkk boo xamante ni ñëpp am nañ yéene dem siyaare ji barab boobu ak njeexte ya nga xamante ni borom Daaru Muxti moo ko fa defoon te demukaay it mel na ne xaw naa jafe lool ngir aw yoonu jafe-jafe képp koo xamante ni sa rôle la maam ñu dégg suñu kàddu nan jàpp ni loolu mooy domaine bu Daaru Koso yoon woo xamante ni dina taw feexe ba mën a ñëw ba gàllankoor yi nga xamante ni ñi bëggoon a màggal si loolu moo leen téye ñoo ngi ciy tàllal loxo ministre bi fu waaye mën a nekk nañu jàppale ci aw yoon ndax nee na ni mu ko waxee ndox mi ñëw na courant baa ngi fi kon ab dëkk daanak ba amee ndox amu courant amu yoon dina gën a mën a jaamoo yàlla lool te dëkk la boo xamante ne bu xemmem teefu la boo xamante ni kilifa yëpp fi la ñu defaroo ay mbokki taalibe yi nekk fu nekk bëggoon a ànd ak ñun ci bis bi te ay jafe-jafe yoon dong moo doon li ko doon gàllankoor kon ñoo ngi ciy tàllal suñu loxo fu ñu mën a yegg ñu xam ne comme ni mu ko waxee kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk moom baaxoo wunoo jël dara di ko teg kenn ci force waaye nañ xam ne ci réew mi lañ bokk ay citoyen la am na loo xamante ni soxla nañ ko loo xamante ni ci domaine bi ñu ko war a waxee fi lañ koy waxee ñoo ngi tàllal loxo ministre bi nga xamante ni moo yor loolu ak bépp koo xamante ni mi ngi dégg suñu kàddu te man ci loolu nañ xam ne dëkk bu tedd boobu loolu rek moo ci aw gàllankoor yoon woo xamante ni dina ñëw ba ci biir dëkk ba ñoo ngi leen sant bu baax a baax di sant ki nga xamante ni moom la ñuy àndal bis bi chaque année muy Tawfekh Production mu ci def liggéey bu am solo di ñaan suñu borom teewale ni ko ay at yu bëree bëri asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi julli ci yàlla ñu ngi ci julli ci yonent bi di ziare mbokki taalibe yi di nuyu suñu xalifa sëriñ Muxtaar Mbàkke di ziare rakkam ju baax ji sëñ Abdou Lahad ginnaaw bi ñu ziare ñooñu ba pare ñu ngi ziare suñu bunt ci sëriñ Maam Mor Koso mii nga xam si moom lañ taxaw ci barabam di sëriñ Maam Cerno Mbàkke ñu ngi koy ziare baax di ko ñaanal ak gudd fan moom njabatuk sëñ Maam Moor gi ñëpp ah di wax ne taxaw nañ fii ci pàkk bi nga xam ne si mooy pàkk borom daaru pàkk bi nga xam ne si ci ndigalu Serigne Touba ci lañ ko sance ci ndigalu Serigne Touba muy daara ji nga xam si ñu ngi koy jàppe ne université bi nga xam si mooy université bi nga xam si moom mooy bu muridisme ci Sénégal kon mooy pàkk bi su ngeen déggee euh, euh, université bi nag li ko waral mooy lu war ci ëpp lu ëpp ci njabootu Serigne Touba gi fii leen jaar xaj na ñëpp nag xamuñu ko xamuñu leen ñu fi jaar ñëpp waaye lu cëpp ci xalifa yi jaar Serigne Touba euh, fi leen jaar ba ci njabootu borom daaru gi. fii nag nga xam si moom lañ taxaw di barabu bii nga xam si mooy barabu sëñ Maam Mor Koso bi ñu ngi ko ñu ngi ko defar ci ndigalul xalifaam di sëñ Maam Thierno. man mii nga xam si maa yor maay wax nii ci sama loxo la jaar ci ndigalu sëñ maam Thierno ma liggéey ko ba fii mu toll kon ñu ngi ciy sant kii nga xam si moom moo fi tëdd di sëñ maam sëñ maam Mor Mbacke di ko ñaanal barab bi nag euh, ñu ngi ko àndoon nag architecte bi nga xam ne si mooy jàlloo moom moo defar plan bi ñu tegal ma ci boole ma ak ki nga xam si mooy euh, la Faye moom moo nekkoon architecte bi nga xam si moom moo ma doon moo ma doon contrôler yàlla ci dimbali suñu boroom nag mm, barab bi liggéey nañ ko ba mu toll fii karole moo ci des ba wax dëgg yàlla am di sàkku ci nit ñi ñu ñaanal ñu ci baax ndax barab bu toll nii buñ ne la kenn nit moo ci nekkoon di ko di ko liggéey ba mu egsi fii dina jaaxal ñu bare. waaye ndimbalul kii fi tëdd moo tax euh, ñu yeggale ñu indi ko ba fii kon nag ñu ngi sàkku ci mboolum taaliba yi ñu ñaanal ñu mu doon ay sance sance yoo xam si maanaam day day jóge day jóge ci ku tedd ki fii loolu daal la ñaan ba di ñaanal na kii fi tëdd di Serigne Mame Mor koso suñu borom defal ko tawféex ginnaaw bi ñu paree ci loolu it ñu ngi soññi mbokki taaliba yi rawatina waa daayiratul Miftaaxul Muna bi nga xam si sëñ maam Mor koso moo ko moo ko moomoon. kon ñu xam ne daayira mun Muna ñu ngi leen di soññ ci kër gi kër gi nag amul frontière sëñ maam Thierno xamal nañu ne daayira Miftahul Muna bu njëkk mennum sëñ maam moor la woon mais léegi jamono ji ñu toll ay sëñ maam Mor la loolu nag déggin la laaj ay sëñ maam moor la bu ko waxee kon nañ xam ne ay nañ xam ne déggin la kon doonatul sëñ maam moor kese ay sëñ maam Mor moo fi nekk. إلا لا لا إله ندام الدار لا إله لا لا إله إلا لا بسم الله الرحمن الرحيم ngi jaare mbokku taalibe yëpp ak mbokku jullit yi leen jaajëfal daadoo ci pàkk bu tedd bii nga xam ne si moo di koso muy pàkk yi nga xam ne si bokk na ci borom daarul muxti gor maam Thierno Ibrahima Faty ndaamal daaru ñu ànd ak jëm sëriñ Mahmadan Thiam mu nekk taalibe ci kër gi nekk doom ci kër gi bernde yi ngeen gis nii ñu andi ko chaque année ñu koy ànd ak moom mu koy andi ci sëriñam bu tedd bii di sëriñ maam Thierno mu doyloo ko loolu moom ci ndigalam ñu ànd koog mbokku taalibe yëpp buñ ci jiitalee magam sëriñ Adama Thiam xam ñoo bokk ndey ak bay sëriñ Massaer sëriñ Assis Fall ak mbokku taalibe yi nga xam si ñu ngi ci biti waroon a ànd ak ñun jataay bi xéewal yi nag. bu ngeen gisee mu yenoo ko daaru andi ko fii ndigal la ci am muy ndigalul sang bi ak dàq ci ngërëmal sang bi te ngërëmal sang bi moom la taalibe bi xeen xeeñcu pur bu ëllëgee mu àgg ci yàlla année bi ñu àndee man ak moom ñëw fi muy daaw jéeg ak baay Adama kere bi ñu ko joxee sëriñ ba pare sëriñ bi yëkkati na ci kàddu ko dinañ la ñaanal at muñ dugg ak mu man di doon nga gën koo man te boobaak léegi fa mu tegoon tànkam itam teggi ko bu fekkoon doon def benn tey def na ko ñett ndax dàq ci ngërëmal sëriñ bi noonu nag dañoo amul ku dul boroom daarul muxti muy rekk Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ji nga xam moo sosoon ci moom rek sëriñ bi dem dénk ko yoon wi mu tracé ko yar njaboot gi sàmm leen ba sëriñ bi del su sànku leen loolu yoonu murit moo ko chéré maam Thierno Ibrahima Fati bari diine bari ngor bari xam-xam te munta war ñemam dogal xam la ko war wuute wala kun yooni la di ñaanal maam Thierno moom Serigne Mamor yàlla yàggal ko fi ci barke borom Daaru Mursi ci barke maamam Serigne Mamadan yàlla yàggal ko fi te wëral ko tam yàgg jiite màggal gi ci barke Sëriñ Tuubaa Cerno ñun nag am nañ mbégte bu baax ndax ki la dimbali rek mooy ki la wax ni kaay ñu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak borom daaru suñu rakk ji di Mamadan nga xam ni maanaam gëmul ku dul maam Thierno sëriñ maam Mor moo nekkoon sëriñam waaye ba fi maam Mor bàyyi ko mu ne dann ci maam Thierno waaye mbër nag ku la jàgg rek ruur ñu ngi siyaare sëriñ sëriñ Mokhtar Mbacke moom mi nga xam ni mooy kilifa jataay bi. waaw di remercier nag waa Tawfekh Production ci ànd bi nga xam si moom la ñuy ànd ak sëriñ maam Thierno chaque année saa suñu ñëwee fekk leen fi ci ay at yu bari di leen ñaanal suñu borom defal leen dam nañu sopp site bi te bàyyi ko xel ñun mooy suñu site ñun waa daaru ndax yaakaaruñu ku dul cerno te fu ñu wooteel cerno bu ñu ñëwee fekk leen ngeen taxaw yal leen yàlla jàppale sàmm leen defal leen tawfeex en tout cas den ko bàyyi xel te deen ko topp te lu mu mën di dugg ak lu mu mën di doon ci lu baax it den fexe ba contact leen ngeen ñëw ànd ko ndax ñu rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin nahmaduhu taala wa nastaciinuhu wa nastaxfiruhu wa nastahdiih wa nacuudu billahi min shuruuri anfusinaa wa sayyiaati acmaalinaa allahumma salli alaa sayyidinaa Muhammad wa alaa aalihi wa saxbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaara ci bés bu mag bi bis boo xam ne ñu ngi koy defe fii ci daadu kosu di ko defal ku baax ku tedd ku liggéeyal lislaam ku liggéeyal alquran muy sëriñ mahmudan mbakki sëriñ mamoor rahimahullah daan ko def definu rafet ba yàlla dogal mu wàccub liggéey sëriñ Muxtaar Mbakke jiite njaboot gi di ko def ànd ko ak sëriñ maam Thierno mi taaw sëriñ maam Mor yàlla nañ ko fi yàgg def lool tam ànd ak jàmm ak xéewal ak wér ba ñu àggale yéene sëriñ maam Mor àggale yéene sëriñ Mahmoudan kon nag bis bi bis la boo xam ne bii bis mënu koo gën a am euh, ëpp féete kaw ndax dëkk la boo xam ne bii waxuma na ñëw di fi di fi def màggal gi waaye ñëw ci dëkk bi képp di fi siyaare doy na sëkk ndax fii euh, borom daaru bi mu ko sancee da ko bëgg lool bi mu fi yabal si ma sëriñ Mahamadan daf ko ne damaa bañ mu gent moo tax mu bëgg nga demal ma fa bi mu fi ñëwee itam coono bu ne dañ na ko fi mm, mar lu mar mar fekk na ko fi xiif fekk na ko lu ne fekk na ko fi nit ku baax ku ne itam fekk na ko fi jànge fi yoonu murid yëpp nag ba ñoom ñëpp génn di ay kàngam mu liggéeyal fi kon lislaam liggéeyal fi alquran kon nag yaakaar naa ñëw ci suuf si képp barkeelu la kon nag noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla eh, barke bi fi nekk yàlla may du ci te yàlla itam defal leen ñoom fa ñu nekk ay xéewal ci barke bu maam Cerno barke bu alquran jin doon jàng fii luñ fi ñaan yàlla na na ko yàlla nangu luñ fi joxe ci ay xéewal yàlla na ko yàlla dem muy ay xéewal jotale leen ko te boole nu ci ñoo ngi siyaare bokk yëpp ñoo ngi siyaare taalib yëpp ñoo ngi siyaare mboolem aju ci kër gi di leen ñaanal di sakku seen ñaan yàlla na yàlla na nga ñaan yëpp barke bi alquran asalaamaaleykum wa wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu kenn ku ne sa tur ak ci sa sant ah di nuyoo ci turu daayira bii di Muftaaxul mu Muna ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi daayira yu nekk kër sëñ Muxtaar daayira yu nekk kër sëñ Moustapha daayira yu nekk kër sëñ Abdoulahat kër sëñ Ahmadou mboolem kër sañ sëñ naa mboolem turu daayira yëpp ah ñooy nuyoo ah, di leen sant bu baax te leen di ziyaare te itam di leen xamal ne pas-pas bi ñu bokk mooy li nga xam ne mooy waral taxawaay bii kenn ku ne laxasaayu doonub daayira te fa nga nekk que biir kër ga nga ne ak kër kenn ku ne ci kër ga nga ne ak ga sa morom nekk liggéey bépp benn la ñun ñoo ko waxtaane tënku ci yenn kàddu def ko muy yenn kenn ku ne am fuñ la féetale nga ne fa waaye liggéey bépp benn la ki ñu koy liggéeyal kenn la muy borom daarul Muxti sëñ di ko jaare ci kër sëñ Mahamadan yàlla boole na loo xam ne nag dañ ko mënta séddoo te kenn mënu ko bàyyi sa morom muy sëriñ bi sëñ Mahamadan lanu yàlla boole te duñ ko séddoo mukk te mënu ko bàyyi sa morom te koo ne bàyyil mu bañ kon bokk rek lañ koy def loolu moo waral rafetal gii nu nekk ñu ne ci di ñaan nag ñëpp fekk na ci kenn ku ne nga nampta ci sa njaboot woo ci say mbokk woo ci say taalibe say mbokk say xarit say dëkkandoo te xam ne leenu yàlla boole te mënu ko séddoo rafetal rek moo ci moo nu ciy dimbale muy sëriñ bi ah loolu nag ci lañu soññ mboolem dayre ak fu dayre mën a nekk ñoo ngi leen sant ci li jàll di soññee ci li jëm di xam ne kër gu ne la fa nekk ña fa nekk ko fa def ñoo ko fa def waaye kenn du jóge fenn dinu defartil kër sëñ Mahamadan gi kër sëñ Mahamadan gi ñun ñu ko seex naan xam ne lu fi ne noo ko fi def lu fi war a nekk noo ko fi war a def kenn du jóge fenn dina ko dinu defal si dara kër sëriñ boo fi gis la fa ne ña fa ne ko fi def te kër gii kat wax dëgg yàlla maanaam ki nga xam ne moom la ànda di liggéey ak moom di ko liggéeyal desuloon gannaaw kon nan fexe bu des gannaaw lépp lu ne ci kër war na am fii kon nan xam ne que sëñ Mouhamadou ngi lu fi ne noo ko far def kon noo ngi soññ mboolum dayre fu ab dayre nekk ñi ngi lay soññ bu baax a baax a baax a baax a baax bay wuñ benn dayre lax saay gi nga xam ne moom la sëñ digal sëñ Mamour doon di ko digal sëñ Muxtaar ñëw tege ca ko ndigal loolee yeesal ko yokk ci ay ndigalam lépp gën a rafet ndigal loolee nan ca jàll yàlla nañu ci yàlla dimbale noo ngi leen di sant bu baax noo ngi gërëm ñëpp noo ngi gërëm fépp nit mën a jóge nag ba ñëw màggal si fii ak nga amoon yéene ñëw te mënuñu ak ku mën a doon lépp la nga xam ne suñu borom dégg na ko ci jëf ju baax jëf yi ca gën a kawe tuyaaba yi ca gën a kawe yàlla nanu ko suñu borom defal ci ci jëf ji te defal ko mboolum jullit boo xaye bàyyi ko nga fa nga jóge te tey tey yëkkati la li suñu borom dégg ci tuyaaba yi jëf ya nga xam ne ca ña doon ba badar ba fii ak la ko jiitu ci lu baax fay ya suñu borom di fay yàlla nanu ko suñu borom fay ci lii fay ko mboolem ñi ñëw ak ñi amoon yéene ñëw fay ko mboolem jullit yëpp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññee bu baax a baax a baax di gën a soññee rek di gën a soññee rek nan góorgóorlu bu baax a baax a baax te jàpp ci li nga xam ne moom lañ suñ moom lañ moom lañ suñ booleel noo ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba Serigne Mokhtar mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi noo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo ëpp doole lépp mooy borom lépp noo ngi koy ñaanal lépp li nga xam ne yéene na ko ci diggante yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak sëñ Mouhamadou yéene ko yàlla na ko ci yàlla jotale lim yéene jullit yi yéene ko taalibe ci diggante yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak sëñ Mouhamadou yàlla na ko ci yàlla jotale noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp noo ngi jégalu kàddu bu baax a baax dañoo xaw a bett noo ngi jégalu bu baax yàlla na yàlla def tawfeex bu baax ba ci seen kaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw ñun waay ñun ñooy waay daayira ahlu café bi sëriñ Mamour Koso ahlu café bu tuuba ak ahlu café bu Mbadiane ñoo teew fi nekkoon si màggal gi di liggéeyal borom Koso waaw màggal gi wax dëgg yàlla lépp jàpp ne na daayira bàyyi nii daayira bi mooy ahlu café waaw ñoo ñoo ko sos sëñ Mamor Koso moo ñu ko uh, joxoon ndigal ñu taxawal ko dip boobu léegi nag day jëm kanam waaye delluwul ginnaaw ndax kilifa moom lu samp moom tànk kanam lay am waaye amul tànk ginnaaw waaw sëñ bi mooy sëñ sëñ Assane Kebe moo jiite daayira bu Mbadiane bi ki jiite daayira Touba bi man maa fi nekkal sëñ Pam Ndiaye lañ koy wooye ak ak suñu mbokk taalibe yi ñëpp waaw wax dëgg yàlla ay jàmbaar te jàpp nañ si liggéey bi ndax kenn ku ne ku ne amalu la sab sëriñ bu sab sëriñ bootee moom noonu ma def da nga koy wujji waaw te màggal gi it wax dëgg yàlla sant nañ si yàlla bu baax ndax ku fi ñëw bu dewee nee nga gis yokkute si sa bopp maa ngi gërëm ñi nga xam ne si ñoo topp ci man ñuy góor ak jigéen nag ndax lu ma lu ma yëngu ñu ñu jàpp ci lu ma ne ñëw leen ñu ñëw leen lu ma ne def leen ñu def leen xoolu ñu contrôlé wuñ leneen lu ma ne acca rek ñu ne acca ci loola tool baag lépp bu buñ koy bay luñ ci wax rek ñu jàpp ci lañ nañ ko waxee woon comme ni leen sëñ maam Thierno waxan daan ni leen moo fay sama njiit lu mu leen def loo maa leen ko def loo lu mu leen tere maa leen ko tere kon sasoo léegi ci man la des waaye desut ci ñoom maa ngi leen di sant di leen gërëm na ci ñaan taxawaay bi yàgg yàlla yàggal fi suñu kilifa gi ngeen si mooy suñ Moxtaar Koso ak i ak i teel bi yëpp nag maa leen di soñu baax ci liggéey ko fi bàyyi woon te dañoo ñaanoon mu am tànki kanam waaye bu mu am tànki ginnaaw na maa leen di ñaan ñu góorgóorlu ba mu am tànki kanam waaye bu mu am tànki ginnaaw nit ñëpp nag jàmbaar lañ jàpp nañ ci liggéey bi na maa leen sant baax di leen gërëm na jaa ngeen ñoo ngi fii fi daarul koso ci màggal gu ñuy cant gu ñuy màggalal borom daarul Mawti ci allu kafe bi nga xam ne moo sosu fi ci diggante bundu baali ak ñangeen ci ndaw ñi fi nekk ahlu kafe bi nag ki ñuy wax Serigne Maam Abdoul Diané moom mooy président bi ginnaaw bi Serigne Abdou jaanee mm, ki ñuy wax maam Thierno Tine mi addu ngeen di dégg mooy vice président bi topp si moom mu mel ne axlu café bi nag yàgg nañ koo taxawal yaakaar naa ren la ñeenti wala ñetti at yooyu ñi ñi ngi ko sosoon ci ñun ñi nga xam ne ndaw la ñu xam ne màggal jàpp ci bis bi da cee am solo ndax yaakaar naa màggal si rek di wër loolu dafa am dafa jamono juñ toll nii loolu dafa weesu dafa dafa xewi li xew mooy da ngay fexe boo ñëwee ci bis bi nga fexe ba def ci sa wàll ba nga xam ne ku la gis dina xam ne yow mii kat cant gi ñuy sant borom daaru moo tax wala màggal gi ñuy màggal borom dëkk bi am nga loo ci yëg am nga loo xam ne yàq dund loolu tax na ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk foofu ci tund wa muy di tund baale dajaloo di def at mu jot kenn ku nekk ci góor joxe junni ak ñaari téeméer ki nga képp kuy jigéen tamit nekk fa di ndaw joxe juróom benn téeméer bu ñëwee fii ci daarul koso ñu eh, commencé ko ci suba gi ay ndékki lañu ñu commencé commencé ay laax biñu demee ba suba gi ba jamono yi waxtu añ ñu ñu waaye café gi moom buñ commencé rek ci la ñuy commencé liggéey bi ba bët set bu demee ne ñu ngi ci base bi tamit ci liggéey bi ci conférence bi wala ci jàngkat yi tamit aussi ñuy doxal comme nii borom maqaama am na karaama wax leen jaaraama maam ceeru na faati ba bamba soxla yow leen fa wóolo yàlla la wóolu maam ceeru na faati moo njëkk a dem ndar ca kër ndar waat naa gor maam Cerno Faati sëñ Mahmadan borom tasawuf la ku ay jëf la Mahmadan borom xar baax la ay wax bay sëriñ Maamoor Koso ko nooyoon la wet ta neexa àndal te sàmm ay waxam ta neexa dendal ibnu maam cerno faati daa dëddu addina ba def am daa soppoon alxuraan daan ko wàccew yoon sëriñ maamadan daa soppoon lislaam ba def muy wettelam te gëm cerno birahim ma doon ab sëriñam lislaam da jooy ba wakiilo ni asbuna allah wa ni'mal wakiilu lislaam bu doon jëmm nu xam ni dem na bu dooni tool nu mën a waat ni booy na maami sëriñ Seexuna moo nu daan woo ci yoonu yàlla ak darajaay sëriñ bu xam ba yàlla maam Cerno ko waxoon ci moom muy yaatal sëriñ maama daan fu man di dem lislaam la doon xëy àndal yaa waasiyaan ja Seex Bamba waxoon ca wa moo yàkkali mbirum sëriñ Maamadan loolu doy na xarwa nurun ala noorayni sëriñ Mahmadan moom yombu bakum gërëm nga am gërëm fa yàlla ku ko liggéeyal faw yàlla fay ku daa jaamu yàlla ku daan jokkuk bokka ku daan bernay ganang ni banni fii moo di ajjana bina wa xawina wa wa ablana usnal xitaami rabbana salliyan ala nabi wa waxtu bi aajaati kulli muslimi addi sëriñ Muhammadan addi Koso see xam ne màggal gi moom macha allah màggal gi neex na at mu jot bii mooy sama ñetti at ci koso ma màggal si màggal gi neex na lool macha allah fa ngeen ko bëgg a yóbbu yàlla na ko fa seen maam borom daaru muxti yóbbu waaye itam ci yoonu diggante koso Touba metti na ci sëfoor si parce que yoon bi neexut bari na suuf xam naa ne bu nu amoon maanaam pexe moo xam ne ni daal des na ko mën a fexeel ba bu tëli ko bu mun a tali tam nu ran waaye nan nu talil ba nga xam ne nun at ba at la ñuy ñëw waaye ba ñu fi dëkk itam oto yi fi dëkk di dem surtout Serigne Makhtar Mbacké mi nga xam ne dafay dëkk di dem ak a ñëw oto yi yëpp maara bu fi dëkk di man di dem Touba di dem man di dem Dëru di ñëw tali bi mën a leer waaye daal xam naa ne euh, wàllu yoon moom gàllankoor na dëkk bi waaw ku mel ne Serigne Badiane ni nga koy gis nii mi ngi dugg si moom itam suñu jëwriñ la parce que moom wax dëgg yàlla bajaan Badiane wax dëgg yàlla bi ñëwee ci dëkk bi yaatal nañu fi fu na gis itam mel na ne maanaam yàgg na noo xamante ay ati at at sa yàggut ay ñaari di leen gërëm seen télé bi yàlla na gën a jëm ca kanam a kanam a kanam. mbégte mu réeréy ndax ba may jóge Touba di ziar ci koso bi ma ñëwee fekk naa fi mbooloo moo xam ne koo fi fekk ku ne da ngeen a bokk bëgg-bëgg bëgg bi mooy siyaare si dëkk bi siyaare waa dëkk bi sa kontaante gën a yokk sa mbégte gën a yokk ak ñaanal. sëñ Mahmoudan moomu yal na ko yàlla dolli leerte te bàyyi fi njabootam gi ak dongo yi yal nañ ko yàgg a fekke te tal ko euh, sëriñ Cheikh Astou maa ngi ñaan fanam wu gudd wànd ku wér moo ko njabootam وثقت برب العرش الجود والحفي مع المصطفى ولا لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وحده عليه السلام من بي خد ما لخوي وخاني بي سوي ولي كان بالمنى ولي خاد إخلاصا بيخا ما سوي